baie de Hann si lu ñu seetlu li ko dalee hann sur ba Hann Montagne daanaka jafe na romb benn kër wala ñaari kër te doo gis ab tuyau de canalisation yu ay boroom kër génnee jëmale ko ci géeju yaraax bi mu nekk lu askan wi di ñaawlu. du yoon du yoon du yoon yoon tey jii ñun dañu waroon dem service d'hygiène ñu arrêté leen ci nu mu gën gaawee parce que y a pas mal lii ngay wax man teg naa ci sama bët ñu ngi ciy wax nag te ñu ngi ciy dox guddi yi ñu toll. problème bi ñu gën am ci wàllu tuyau yooyu ñuy génn bi ci gën a rëy mooy canal 6 euh, fan yi ñun suñu problème mooy loolu li gën a impacté bee bi canal 6 si la bokk ak yeneen canal yu mel ni moom boo ko jàpp fii ba euh, Sotiba yu mel noonu ci la bokk donc bu ñuy wax impact aussi yi nga xam ne dañ ko def ci baie de bi tuyau yi ci la bokk te kenn defu ko muy les riverains ñi dëkk ci booru géej ñoom ñoo koy def li nga wax man en tant que président conseil de quartier maa ci te neexuma neexul waa dëkk bi te incha allah bokk na ci li ñuy xeex. borom kër yi ñu defal seen kër ba mu rafet ñu bënn foos bi utal ko benn égar bu ndaw muy wala ngaan jëm tefes mu loolu baaxul ci ñun feebar lay indi ci ñun te ñun luy defar rek dañu bëgg te gis nañu sax léegi dañuy defar lu dëkk ci dëkk bi.

booru tefes gépp ñu fatt douche yi fay walangaan yëpp ñu fatt ñun daal loolu la ñu ñaan monsieur le maire Babacar Mbengue dimbali ñu Babacar Mbengue yaraax mu ngi yàqu ci kaw kër yi nekk booru géej yëpp dañoo bënn seeni foos muy walangaan ca kaw tefes loolu daal lañ ngay ñaan yow Babacar Mbengue nga dimbali ñu ci Mbacke Sek di activiste ci walum environnement yàgg xeex ci pollution bee de an bi ardu na ci te andi ay leral ci bile phénomène loolu daanaka phénomène bu bees la

donc l'olu quartier yi nga au nord de la baie de Andi directement ci à travers les canalisations d'eau usée Wa an commencé def branche directement lignes de force au niveau de la mer ñaar yépp ben baax ci Nous gënu ñaar ci la code de l'environnement dans ses dispositions relatives à la pollution des eaux entre les articles 30 et 36 et même 39 il faut condamné le code de l'hygiène dans plusieurs de ses dispositions dafa tere ñu sotti ndox bu nekkul ndox bu segg ndox bu ñu segg ndox bu set mais aussi bien à Yarax que quartier yi nord de Yara, ñoom ñëpp dañuy sorti ay ndox yi nga xamni

Inshallah dinañ ko tabax pour mu ségg ndox mi avant mu len di sànni municipalité bi mënu ko ko parce que daf ko dépasser problème assainissement nekul compétence municipalité bi limi mën moy limi wara def moy ànd ak population bi ñu def plaidoyer auprès de l'État du Sénégal pour que projet baie de Hann bi gaaw ñu démarrer ko ah, gaaw ñu def ko ni mi gëné ba feebar yoy nga xamni day joggé ci pollution ak saleté ak tilim yépp mu joggé fi loolu moo war a nekk waru garam mais munu ci tappale munu ko jéem a def mënul faire semblant parce que c'est des problèmes très sérieux qui dépassent son budget donc euh, loolu mooy suma xalaat ci mbir yi mais il faut qu'on interpelle l'État du Sénégal qui dans la Constitution parle d'un d'un droit à un environnement sain c'est l'article 7 c'est ce même État du Sénégal qui modifier la constitution dans l'article 25.2, qui a deux droit en environnement Ces c'est plusieurs dispositions du code de l'environnement qui ont mbiru sat ak setal mbiru géej bi ñu Le ak ban xeetu ndox donc dañu war pousse gouvernement du Sénégal pousse service public yi respecter li nga xam loi wax na ko ci wàllu sotti ndox mu bon ci citoyens nous ñoo ci kenn bañ a nekk spectateur ñëpp nekk si acteur